ñu di nuyu auditeurs yëpp xibaar li ci gën a fës naqar ak tiis bi ci aéroport bu Diass bi ni juróomi doomu Sénégal yi faatu ci làkk ci Amérique doon yegg si daañu leen jébbal seen boroom tey ji ci sëgg Yoff nguur gi xam ne ni daañu topp lakk googu lanket bi ba mu mët sëkk yaakaar ci wutug jàmm ca Casamance nguur gi ak kuréel fipp yi nopp nañoo toog euh, waxtaan buñ sukkandikoo ci kuréel gi yëngu ci wàllum jàmm di centre pour le dialogue humanitaire Euh, Kaolack ak Ndar di tëmb gannaaw taw yi diggante démb ak tey askanu di dundi jafe-jafe yu metti ndax mbënd yi lañ ci teg xibaaru tàggat yaram euh, chronique culture bi coronew si jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su du niñ jaay faram fàcc El Hadj Ndiogou Diène mbokk yi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak mbirum euh, juróomi doomu Sénégal yi faatu ca lakk ca Denver ca réewum Amérique seen néew yegg si na biik euh, fii ci réew mi ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass euh, seen mbokk teewoon fa naqar ak tiis ak xol yu tooy fësoon fa Abdourahmane Diallo. weeru mars ba tey jii nii ay bar restaurant boîte de nuit ak ay hôtel yu nekkee Saly ñuy jégalu kon du élément boobule ñuy wax ci Abdourahmane Diallo mu jëm ah, ci néewu ko juróomi doomu Sénégal yi faatu ci Denver seen néew doon yegg si nag biig xol yi tooyoon lool ah, ci seen mbokk yi Abdourahmane Diallo. bu 10 heures ci guddi tegee ñeent fukki minute ak ñett ci lañ daal di tijji buntu fret aéroport international Blaise Diagne néewu njabootu njool yi daal di yegg si seen njaboot ci leen doon xaar teg ci bët. sàmba si bokk na ci ñu gunge juróomi néew yooyu jógee Denver Colorado ba dakaar di leen ne yàlla na yàlla xaral àjjana waaw lii moom dafa metti si ñun ñëpp faa ñu ñuy nekk rek Colorado waa États-Unis yëpp dégg nga adduna bi yëpp. ñoo am naqar. njaboot gi nag naqar ak tiis la am li ni mel sax a tax mënoo ñoo wax ci kanamu média yi Aboubacry Diallo député sénégalais la représenté département Amérique Océanie yi. muy mbir mu métti métti boo xam ne euh, franchement ni mu demee ak ñi nga xam ne dañoo demoon pour wuti ak ñi nga xam ne ay soutien de famille la ñu woon tey jii yàlla jël leen. ñu delloo yëpp nag ci loxo yàlla waaye nag mbir mu tiis la mu tiis la Sénégalais yëpp vraiment gis nañ ko euh, ñoom ñëpp ñu ngi koy seede ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan yàlla xare leen àjjana. ab enquête tijji nañ ko ci États-Unis ci làkk bi nga xam ne amoon na Denver ba tax juróomi doomu sénégalais daal di ñàkk seeni bàkkan ñoom ñëpp nag bokk ci benn njaboot nguuru Sénégal di xamle ni dossier bi mu ngi ciy teg gëtam Amadou Guèye muy directeur des sénégalais de l'extérieur. boo xoolee euh, le gouvernement pris jël prise en charge bi ñoo leen indi ba Sénégal vraiment di wane ni rek que le gouvernement du Sénégal est toujours là pour ses compatriotes ñi nga xam ne ci diaspora bi d'ailleurs le consul général de New York rencontrer na autorité yu nekk foofu Denver chef police bi maire bi ñoom ñëpp gisee na ak ñoom. juróomi néewu njabooti njool yi Nak, ñu daal di koy yóbbu hôpital principal. ñu war leen jébbal seeni boroom. 10 heures ci suba bu tegee fanweeri minute. ci cimetière Yoff RFM Mbour. Abdourahmane Diallo Abdourahmane Diallo wax nga ko kon ñoom ñooñu di juróom doomu Sénégal yi faat ci lakk ca Denver kon tey jii ci suba gi la leen di jébbal seen boroom te sëkk yof dellu di leen di ñaanal yàlla woy fa su seen kaw tey xare leen àjjana. pour a jege askan wi. uteex tegal ñeenti minutes ci xibaar yi wax ci leneen jëm ci wàllum Casamance ak jàmm gi ah, kuréel gi di centre pour le dialogue humanitaire di yëngu ci wàllum jàmm ñoom xam ne ne ne ñaar wàll yëpp muy nguur gi di fippu MFDC yi nopp nañu ngir toog ah, ci taabal waxtaan ngir juboo mën a am seen diggante loolu nag ñu fësal ko démb ca Ziguinchor gannaaw ndaje bu jëmoon ah, ci nag fësal gëstu boo xam ne dafa ñeel ndaw ñi la nañ gisee li nga xam ne mooy ayu am foofu ca diwaanu Casamance Lamine Ba donte sax ne am na ay rëkk-rëkk yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko mu jëm ci wàllu wutum jàmm ji weer yi weesu loolu taxul ba nga xam ne nag jamono ji ñi nga xam ne yoon ci ginnaaw loolu di ay kàddu yu tukkee ne nag la ci organisation humanitaire bi xam ne ñoo ngi koy dippee HD mooy centre pour le dialogue humanitaire. ñaari euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jàmmaarloo bëgg nañ bëgg nañ jàmm léegi nag ni ñu fay eggee loolu moom foofu nañu toll nii loolu waxtaan rek moo ko mën euh, Euh, indi c'est-à-dire ñaari parti yëpp bëgg nañ waxtaan léegi nag dañu war a euh, trouver li nga xam ni noonu lañuy toggee ñoom ñaar pour trouver ay solution euh, si li nga xam ni moom mooy conflit bi. kuréel bi nag moo ngi doon amal ndaje ci Ziguinchor nga xam ne ñoo ngi ci doon waxtaanee gestu bi nga xam ne ndaw yi def nañ ko ngir xam ban gis-gis la ndaw yi yeewoo ci Ziguinchor am ci li nga xam ne nag moo di fitna bi woon ci Casamance daam Bey moom moo jiite étude bi. gis nañ ni jeunes yi lu si gën a bëri ñoom ñëpp daanaka wax nañ ni ñoom sentiruñ njëriñu conflit Casamance effet yu bon rek la am si seen dundin gis nañ ni également ni jeunes yi wax nañ ni ñoom indépendance bi du newul loo xam ne ni solution la tey pour Casamance gënalu leen. kilifa yi nga xam ne nag teewoon nañ ci ndaje bi rafetlu nañ bu baax a baax jumtukaay boobu nga xam ne nag ndaw yi taxoon nañ ko Mbaye Dione moom mooy adjoint au gouverneur bu Ziguinchor. mën na am njëriñ lu bëri lu ci jiitu mooy effectivement bi ñu xamee ni jeune Casamance jóg nañ pour ànd ci wut jàmm jàpp naa ni mën na nekk lu am solo. ju ak Kolda foofa it ñu war fa waxtaane gis-gis bi nga xam ne ndaw yi am nañ ko mu jëm ci wàllu wutum jàmm ji ci Casamance Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média Lamine euh, Ba euh, forum euh, civil ñoom nak di metitlu coow li am ci justice bi jamono ji diggante sax ay magistrat yuy tuumalante mbirum ger ñuy sàkku nag yoon leeral mbir moomu teewul tamit bëgg nañu ay waxtaan am ci lu jëm ci en tout traite magistrat yi nga xam te na ci lu jur coow yi forum civil fasal ko ci communiqué bu ñu génnee démb leeral yeeg Abdoulaye Job. forum civil section sénégalaise bu transparency international mooy ñaawlu xiiroo ngaayo bi ñu nemmeeku fan yi ñu génn ci diggante ñaari haut magistrat forum civil jàpp ni nag xiiroo ngaayo yooyu buñ ci boole grève bu syndicat liggéeykatu wàllum yoon mu mel ne ay risque la jëm rek ci gàkkal lii di magistrature bi ba tax na nag ñuy sant njiitu réew mi Macky Sall mu daal di door ay waxtaan ngir rek ñu coppi loi bi jëm ci yokk âge bi magistrat yi wala demee retraite ngir mën a moytandiku bu baax frustration yi yu judd rek ci ñàkk yamale boobee waaye tamit mu xool bu baax rek jëfee pour règle ak procédure jëm rek ci naka la ñuy affecté ay magistrat door itamit réforme ñeel conseil supérieur de la magistrature waaye tamit sàkku nañu mu ut ab saafara ci rek coow li dox diggante sudjus ak jëwriñ bi ñu leen dénk boobu lépp jëwriñ sax ñoom Forum Civil ñi ngi sàkku ci moom mu daal di garantir bu baax crédibilité enquête bi mu santaane daal di koy dénk inspection générale administration justice a ab gàllankoor ci coowal juge Kane ak Dia bañ a lànkal autorisation ngir ñu mën leen a topp si seenub badaaxal forum civil section sénégalaise bu transparency international sàkku na itamit ci procureur général près de la cour suprême mu daal di autosisiru jëm ci coowal juge Ousmane Kane ak Yaya Amadou Dia forum civil daal daaneel rek sàkku ci union des magistrats bu Sénégal mu saisir cour justice bu CEDEAO ngir rek fexe mu mën a wax ci loi bi jëm ci yokk atub retraite eh, ñii di magistrat yi. Abdoulaye Diop lu soxal wàllu yoon sax ñu fàttali ne eh, tey nag liggéey bi dina tàmbaliwaat dox ci anam yi mu waree cootu àtte yi li ko waral moo di waa SYTJUST daal di ni dakkalagum seen grève diiru ko ñeenti fan loolu nag ngir wéyal waxtaan yi ak ministre de la justice mi sàkkoon ci ñu daal teg ci suuf grève boobu eh, kon def na lu mel nag diiru ñeenti di xaarandi luy tukkee si waxtaan yi nga xam te ne daañu ko seq ak seen ministre ministre de la justice SYTJUST di syndicat bi mu liggéeykat yi nekk ci justice nekkoon ci grève lépp ñaari weer ngir sàkku nguur gi doxal déggoo ñu xaatimoon atum 2018. RFM rajo askan wax ci taw yi ak i loraange yi mu jur ca diwaanu Ndar euh, quartier yu bari jamono ji mi ngi tëmb lu mel ni Jamina Guinaw Rail wala boog Medina euh, taw yooyu sax tax ba épreuve physique yu BFM ñu doon ko amal démb euh, mu waroon am ci lycée Charles de Gaulle dañ ko mujjoon a taxal yóbbu ko ci stade Mawade Wade ndax lycée Charles de Gaulle dafa feesoon dell ndox kenn mënu foon a dem Mohamed Nabi Sila taw bu am doole am ci àllarba ji ci ndar tax jafe-jafe doon lu ñu gis ci gox yu bare yu ne ci dëkk bi ñi gën a sonn mu bokk ci ci gox yi suufe lool ndox mi di fa faral di ball askan wi ne ci jaaxle li leen gën a ëlëm moo di mbalit mi jaxasoo ak ndox mi lee ba tax na ñu bëgg ci saafara. mbalit mi dafa jaxasoo ak ndox mi te lu ne mën na ko fi jur mën na fi jur ay feebar biir bi daw feebar bu ne mën na ko fi jur. taw bu metti bi sax tax ñu jëlee épreuve physique yu ñu doon def ci BFM bi ci terrain bu lycée Charles de Gaulle tey jii mu fees dell ak ndox tax ñu jël lu mel yóbbu ko ci stade Mawade ci alxames jilee Gambi Diagne surveillant la ci lycée Charles de Gaulle. épreuve yi. ñu programmé woon ko pour BFM bi. ñu waroon ko defee fii ci lycée Charles de bu Ndar daanaka épreuve physique yi am Ndar yépp fii lañ koy defee waaye bii paa lu tax ñu jële ko si lycée Charles de Gaulle toxal ko yóbbu ko fële nga xamee ni moom mooy ca stade Mawade Wade terrain ba moom la ñu mënul jëfandikoo mënuñ kaa jëfandikoo ndax tey jii ci suba ci fajar gi ba heure bii may wax ak yow ndar mi ngi taw taw bu arrêté wul loolu moom moo tax terrain boobu day inondé bu situation bu mel nii amee xeex mbënd mi jóge ci ndoxum taw bi tax ñu jël ay moto pomp yu bare jagleel ko gox yi gën a sonn waaye lu ni mel indiwul saafara ci bëgg-bëggu askan wi nga xamee ni ñoo ngi woo kilifa yi ngir ñu gën a jël ay jumtukaay yu solo jagleel ko lu ni mel RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla Mohamed Nabi Silla li wokk waa Kaolack moo xuri waa li wokk waa Ndar kon moo xuri tam waa Kaolack foofu tamit quartier yu bëri jamono ji ñu ngi tëmb e, gannaaw taw yi nga na fa mu jural askan wi yu metti ñuy sàkku nag ñu daal ci jëli matuwaay dimbali ci ay kër yu bëri di tomb ci biir ndox mi mu mel ni kon nawoon fa woon inondation yi melaat ni mu meloon daaw quartier yu bëri fi mu toll ni la ci biir commune bu Kaolack kenn xalaatu fa dem kenn mënu fa yegg du woto du moto yenn mbët yi sax ci biir quartier bi kenn mënu fa dox taw yi wadd depuis démb ci guddi arrêté woon tuuti ci bëccëg bi tàmbaliwaat ci ngoon bi ba néega ni di tax na bi quartier yi di Sam gaawaan ak Xaaxun ndox yaa ngi ci biir kër yi ñu bëri ci ñi fa bi nanguwaat na seeni kër ba fu ñu dana leen jafé lol té pourtant on est de nguur Tambliona depuis at ay chantier de canalisation ak tabax bassin de rétention ci quartier yooyu wayé waaye mu mel ni kon liñ ci doon seentu résultat yi gisagunu ko sinistre nak nag yëf dina gëna metti lol ci ñom ndax ren école yiñ doon jëm bu inondation mosana am dem laqatu foofule xale yi dañ fay jànge ba radio futur média. Diame Kaolack rajo Futurs fofu ca Kaolack wax bi yoon ci ñi nga xam te ne ñooy liggéeykat yu mairie bu Kaolack ñoom ñooñu nag di sakku ci mairie bi mu fay leen ay rappel ñeenti atu rappel ñu leen amal nee na nag bu leen ko fayul daañu dem ci grève ñoom liggéeykat yooyu sax nee nañ juróom-ñaari million yi leen waroon jox rappel mairie bi da koo jël daal di koy dugal ci xeex mbas mi di Covid 19 Abdou Thiam moo jiite syndicat bu liggéeykat yu mairie Kaolack ay kàddoom ci micro Ibrahima Diame. li atu yàlla ñu war a am habillement du personnel amuñu ko ñu toog ñetti atu yàlla ñu war ñoo jox saaboog meew pour les ouvriers les manœuvres joxuñu ko ñu toog depuis 2016 ñu war a avance avancé nañu mais xaalis bi mënuñu ko fay te ñëpp xam ne ni dans le droit du travail bu fekkee da nga am revendication nga di ko xeex pendant 5 ans ñu la ko bu 5 ans yi passé donc kooku mënatu la ko réclamer ñëpp xam nañu 2016 ak léegi 5 ans yi 2021 la. dama leen di laaj ndax loolu man en tant que responsable syndical war naa mun a toog di seetaan ay travailleurs di nekk di traverser ay jafe-jafe yi te mënuñ cee taxaw indi ci saafara li gën a garaaw mooy avancement 2016 chaque année ñu ñu prévoir ko ci budget bi dégg naa tey ci suba li ñu wax gars yi mooy 7 millions la woon voilà jëndee nañ ko masque jotagul loolu waxam bàyyi ba suba ak jàmm devant l'inspecteur du travail ba ñu wax ko foofu dootuñu ko doole ci li des seen li des seen ngirub dund parce que loolu détournement d' objectif la détournement d' objectif la daañu def fii ay sitting ci diggu mairie bi daañu déposer un préavis de grève Nakon eh, Abdou Ndiaye eh, jiite syndicat liggéeykat ya nekk ca mairie bu Kaolack wax ci wàllum dine ak màggal Tuubaa bi war a am ci weeru octobre jamono ji nag ñu eh, ngi koy waajal ab CRD amal nañ ko ci démb ci loolu nag nee nañu lépp luy matuwaay ci wàllum wér-gu-yaram ko jël ba mat sëkk ngeen nag bañ jàngoro ji di coronavirus daal di fay law ci jamono xew-xew diine boobu wàllu masque tamit daañu fexe ba ñëpp daal di sol masque ci jamono màggal gi docteur médecin chef région bu ñu déglu ko ci micro micro Babacar dañ gis ne jafe-jafe yu bëri ñu am li ci ëpp yeete moo koy saafara ndax dañu gis ne jafe-jafe yooyu bokk na ci ñi nga xam ne dañuy weddi ne feebar bi am na ba nga xam ne duñ jël benn matuwaay même masque yi ñuy wax duñ ko takk am ñoo xam ne sax dañuy dem ba ci soo leen bëggee defal test ñu bañ donte sax dañuy am màndargay feebar bi am ci ñoo xam ne itam dañuy euh, euh, bañ mesure barrière yi maanaam mesures yi nga xam ne mooy tëralin yi nga xam ne ku ci jaan mën nañ njortu ne mën nga mucc ci feebar bi yooyu ñoom dañ koy bañ. kon ñun défi bi fii ñu toll mooy ñu détecté cas yi. ñu fexe di teel a gis ñi feebar pour mën leen taxaw. waaw poste avancé yi comme ni ñu ko daan defee dinañ def ay post avancé ci quartier yi ay post yu doy ndax quartier yëpp nañ fa def ay post te ren jii nag dinañ ko gën a organiser pour que poste avancé yooyu bañ a doon ay béréb yoo xam ne nit ñi dañ fay daje di fa yàgg wala di fa buuxante. ci kaw loolu dinañ gën a organiser poste avancé yi indi fa personnel bu doy ci poste bu ci nekk ba nga xam ne nit ñi duñ fa yàgg te duñ fa buuxante loolu moom ñu ngi koy waxtaan ak suñuy naataangoo ambulance ak yooyu yëpp dina ñëw xam naa teel na ñu wax ci loolu mais xam leen ne matuwaay yi ñu war a jël yëpp ñu ngi ci di ko sàkku ci ministère ak ci suñuy partenaires. xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diallo Thianda sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Alaaji Ndiogu Diène xibaaru tàggat yaram yi dañ koy dal doo rek wàllu football ak lii di commission euh, des arbitres ci biir fédération sénégalaise bu football dal nañ tabb Malang Diédhiou mu dal di fuutu dem ci yàlla Amadou François euh, Guèye mi nga xam te ne moom moo doon jiite commission centrale des arbitres euh, ki nga xam te ne moo di Malang Diédhiou nag moom ancien arbitre la jamono gi doon membre bu commission des arbitres bu confédération africaine bu football doon itam instructeur ci FIFA geneen décision bu bawoo comité exécutif la fédération sénégalaise bu football Modi Gibril Sidibé moom moo daal di wutu euh, commission nationale de résolution des litiges Daldi di remplacer ki nga xamante ni euh, jamono gi secrétaire général de union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal comité exécutif fédération sénégalaise bu football itam Konbok di kon bokk euh, japp bes bi nga saison. Euh, bu football euh, bu bu kon bokk dañ ci dal di deglu Omar nga xam dina bi nga xam ci fédération sénégalaise. saison 2020 2021 dina tambali 31 octobre bi ñu dëgmal ci lolu formalité administrative yi ñeel club yi ñoo si Ligue 1 ak Ligue 2 ñoy jitu ci mbir mi te ñooñu diggu wéru novembre lay nekk top ci club Ligue football amateur yi jongante Coupe du Sénégal bu football moom ñaareelu fan wéru janvier lay tambali lu jëm ci datu FIFA yi comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football ne dina ci taxaw Sénégal dina jongante ak waa Guinée-Bissau ci aller ak retour juróom-ñeenteelu fan ak fukki ak juróom niel fan 3 troisième ak quatrième journée qualification coupe d'Afrique 2021 ci lolu fédération sénégalaise bu football né dina tambali liggéey niel tabax lo yu siège régional yi fukki ak fan septembre Kédougou dina amal séddale yu équipement sportif yi nga xamné FIFA moko joxé assemblée générale ordinaire fédération bi am fukkeelu fan weeru octobre comité exécutif ne dina ko toxal ba jëmmi jamono li waral bile dogal nag mooy tere bi ñu tere woon rassemblement yi ñeel mbas mi di coronavirus. wàllu football ak Pape Cheikh Diop di doomu Sénégal euh, juddo fi nii ci Ndakaaru ca Pikine foofu lañ ko daal di formé laata nag muy daal di wutali euh, Espagne foofu nag gannaaw bu mu fa demee dafa daal di jël nationalité Espagne ba ànd ak équipe nationale espoir Espagne jot a gagné nga xam te moo di euh, coupe d'Europe espoir ca atum 2015 la woon moom nag gannaaw interview bi nga xam ni jot na amal ni ki démb. milieu terrain googu daal di am ñaar fukki ak ñett interview bo mu daf ko ci site bi di l'équipe dal na xamne dal daal moy mooy daal di eh, delluwaat ginnaaw ci dogal bi nga xam te ne ko di ñëw défendre li di eh, couleur équipe nationale bu Sénégal mom nak eh, jotna football ci euh kon bok ci Celta Vigo ci Espagne lat nak ñukay koy ci Lyon ganna ba koy yóbbu Lyon wa Lyon tamit daal di abal ñi nga xam ñoo di wa Dijon mom nak Pape Cheikh Diop ba mu amee fukki at ak ñaar la di kon bok dem fofu la ci Espagne ndax moom euh, ñëwam jamono gi équipe nationale bu Sénégal danañu amal solo am déet tontu lekk suñu nattaangoo kii di xalifa Gueye ñu déglu ko ci téléphone yi suba nañ ci demee xel te bañ ci demee xol. jour bi euh, dëgg la. ñaaraat ci ginnaaw. dafa ni woon moom Espagne la bëgg a fubal xëy na xaar na def na clin d'œil def na lim man Espagne woowu ko donte nag fubal na fa gañe na fa sax Euro U19 Asensio mi min doon soow daaw Real bokkoon na ca équipe boobu dem na ba joué ci U21 yi sax dégg naa xëy na euh, ngi doon xaar mais euh, doxul léegi nag moom mu xalaat ni aussi am na beneen chance mooy football Sénégal léegi nag mu génn avoué ni dafa bëgg football Sénégal pour man il ñu war a njëkk a xool le joueur en tant que footballeur est-ce que profil intéressé nañu man de dama naan waaw parce que c'est un milieu relayeur le Sénégal n'est pas très bien fourni en milieu hein. la preuve mooy Aliou Cissé ba fi ñëwee ba léegi il a pratiquement essayé plus de douze milieux terrain ou treize ku ci nekk indi na la parce que xëy na li ñu wër amagu ko gànn géej daanaka kese moo ci gagné woon place am donc ku mel noonu bu dee milieu relayeur lañ koy gis mu koy def donte nag nee nañ dana fubal milieu défensif baax na mu ñëw ñu xool ko mu baax na gis naa ko ku sawar ci terrain paasam baax na am na ñam pour ñu sélectionné ko léegi nag ci moom la parce que man damaa gëm ne équipe nationale ku fi ñëw di fubal da ngaa war a compétitif sa équipe te nag bu mu nekk équipe bu njalaxaar dafa war a nekk championnat bu am niveau nekk équipe bu am niveau nga fay fubal yow tamit am niveau loolu lañ war a sélectionné Pape Cheikh Diop mii dafa bok ci ñak chance defoon déclaration loolu rek xeyna lañ koy reprocher mais dem na ba ci biir mu xam ni déclaration bi da koy porter préjudice et que amna chance football Sénégal gannaaw ñum ñëpp ñu wax la ko ak ñu bañ ko wax ku ci amone possibilité football Europe da ngay football Europe légui nak dañ ko xol bu dee nag lu compétitif la woo ko bu ñëwee jàpp naa ne bu fubalee benn match ñaar ñett bu defee match yu baax gars yi fàtte lépp mbay ñaam yi lu ne def nañu ko fi euh, supporter FC Barcelone daal di mer bu fut gannaaw ba Messi jëlee dogal ni daal dafa dal di bëgg a jóge daal di wutali geneen équipe euh, gannaaw loole nag ñoom niki démb daal nañu manifester ba ñëw ca Camp Nou des stade bu FC Barcelone euh, sasaasa nag daal nañu euh, kon bokk bëgg a seq waxtaan ak ki nga xam ni moo di seen président di Josep Maria Bartomeu waaye ñi nga xam te ñoo di agent de sécurité yi gannaaw ba ñu débordé nag dañoo daal di woo police ngir ñu daal di kon bokk dispersé yooyu les supporters ci ay xibaar yu mujj nee nañu Pape Messi di Jorge Messi moom jamono gi sax daal na sumb waxtaan ak ñi di waa Manchester City rajo catalan bi di. track euh, ou ñoom ñoo daak euh, wax lu ni mel ñoom nag nee nañ jamono gi sax euh, ki nga xam te ne daal moo di Pape Messi mi ngay négocier ñoom te boo mayul ci transaction bobu li nga xam dal daal bëgg nañ ko def seen digg ak ñi wa Manchester City eh, ki nga xam te di waajuru Messi ak itam Messi amna yenn ci ay conditions yi nga xamante dal daal nañ ko tek ci table bi ngir dal di kon boo fexé nañu def ngir mëna dem eh, dem foofule ca Manchester City fekk fa ko fa nekkon entraîneur am ba woon ca FC Barcelone eh, di euh euh mu tudd sax. Pep Guardiola waaw voilà mi ngi non la Hadj Ndiogou Diène ñu dal di kon boo waxtane wala football ba tey waaye bi la yon ci ci jigéen ñi ak final Ligue des euh, champions olympique euh, lyonnais moom euh, dana taseek ni di Wolfsburg di équipe bu Allemagne ni finale final daaw non la démé won Lyon nag mom moko gagné won ñom nak démb dal nañ qualifié final ganna ba amé ndam sen dig ak Paris Saint-Germain ci demi finale. bi ben ball ci dara sen bit nak ko duggal modi Wendy Renard di international française ñu dal di ko jeexaleek basket basketball la jóg jën aux États-Unis euh, ñetti match NBA dañ ko daldi dakh ba jëm jëmmi jamono la ko waral nak modi day am ñuy manifester euh, ci lu jëm ci walum euh, violence policière nga xam tane dal daal dañ ko tek di Jacob Blake mom di ben afro américain daal di am ñaar fukki tek juroom ñent ñeent ay policiers ñoko daldi kon bokk fetal mu am ci ay gañu gañu yu metti ñi nga xam te ñoo di Bucks Milwaukee ñom nak dal nañu annoncer ben mouvement de contestation ci NBA di championnat bu basketball bu Amérique du. du nord ak eh, itam Sassas am na yeneen ñetti match yi nga xam te nar nañ ko amal niki démb ñu daal di ko dàq ba eh, jëmmi eh, jamono jàppale nag match googu naroon na dox si diggante rap Raptors bu Toronto ak ñi nga xam te ñoo di waa Celtics boobu itam daal nañ ko dàqi jàppale nag joueur yi nga xam ñoo di franchise canadienne yi ñoom fi toll nii dañoo naroon tese ak ñi nga xam ñoo di waa Boston ngir kon bokk boycotté googu décision dootu googu kon bokk match gannaaw ba ñu ni loolu am na fa foofule ca États-Unis nga xam ni benn bu dul ñaar yoon ñu leen di joxoñ ci biirub racisme ak itam yenn ci ay takk der ay policiers blancs di faral di tiré si ay nit yu ñuul. jaajëf sëñ Cheikh. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor wóor. wax wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Ndate Diop. dalli nag jàmm suñu ceebu jën Penda bi léegi rek UNESCO Bole ko ci seen moomeel li ñuy patrimoine immatériel culturel mondial liggéey bobonak nag ñi direction du patrimoine ñoo ngi ci ligne bu mujj bi gouvernance bu ndar géej daal dinay daral talaata ji ñu génn ab CRD buñ mel lañ bëgg ba indi askan wa ak kilifa ya ngir ñu ànd ci projet abdoulaziz gisse moom mooy directeur du patrimoine ci ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ak wàllu communication ñu déglu kook Mouhamed Nabi Silla ba ñu dooree ne dañu bind ceebu jën yóbbu ko ci patrimoine mondial maanaam séddoo ko li naan humanité bi monde bi yëpp xam lan mooy suñ lu bokk ci suñu aada ci suñu gastronomie ci li ñu nekk li ñu nekk mën nga ci mën na nekk ci solo mën na nekk ci xelaatin mën na nekk ci jëfin mën na nekk aussi ci lekk loolu yëpp dafay mandargaal patrimoine mooy lan mooy suñu culture suñu aada boo ne ndar ndar bi lii la ndar bi lële la ca colo ba la sa lii ak waaye nañ la aussi ne moo tax ne nañ ko inscrire bañ ko commencé yàgg na CRD bi dafa waroon ñëw rek tëj ko mois de mars parce que ñi waroon waxtaan ak ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom muy gét ndar goxu mbaaj ndar tuut ñëpp lañ waxtaanal ba ñëpp d'accord ci mu desoon nag collectivité locale mairie beeg yeneen institut de recherche université yeeg administration bi ci boppam territorial dajale nit ñi ne lii la nit ñi wax ne moom lañ bëgg a def ndax ànd ngeen ci buñ ci àndee nag de dix minutes de documentaire moom Grand Prix Unifrance film court métrage fiction Les Tissus Blancs pour réalisateur Molikan. Molikan, maintenant, maintenant y a une sélection ci ay festival mu festival international bu Toronto ak festival international francophone bu Namur ci en Belgique ci vois un festival Kane lañ ciy déglu jokkoon nañu France. soo nekkee artiste di ce ce film ñu tànn ko ci ay junni film ce festival ba Toronto, festival Toronto fële Canada ma nekk africain nekk sénégalais bi nga un ne maa fa sama euh, loolu mbekté lay doon ci man tamay doomu Pikine di doomu Sénégal maa ci content, bax di sante yalla bu bax aussi muy film bi di tudd euh, letiti Blanc ñukay wax ci wolof sœur bi ñaareel bi tamit ñu xamal mané tamit film bi dina représenter Sénégal ci jongante bi am ci Belgique muy festival Namur festival international bu Namur fële ci Belgique boobu tamit nekkat benen mbekté gannaaw bañ ko sélectionné ci Grand Prix Uni France fi ci France mu nekk ay mbekté yu bari yu nga xamné dal lañ ci sante yalla bax bu len faté nak ne film bi ci ñeent atu yàlla maa ngi koy liggéey ànd seeg sama équipe fii Sénégal Babou Film production muy société de production bu ñu nekk ak beneen société de bu nekk fële ca Tugal ca France tudd film Grand 8 ñoo ànd liggéey film bi si ñeent atu yàlla yu métti yi nga xam ne nala wuñu ba yandoor moo tax daal mbégte laa ci am jageen jëf ci déglu bi fii la ñu di daje ëllëg jaajëf Ndate Diop Karo News la ñu si léegi ànd ceeg Fama Dione ni mbas mi sonalee góor ñi sonalewul noonu soxna yi buñ sukkandikoo ci ab jàngat boo jëlee téeméer nit yu faatu ci réew yépp juróom benn fukk ya ay góor lañu loolu nag di wane ni soxna yi dañoo am ab réponse immunitaire bu gën bu góor ñi ci France démb am nañu juróomi junni ak lu topp ci yu bees nekk nag ak bilan boo xamante ni gëj nañ koo am weeru avril ba léegi Espagne am na ñetti junni ak juróomi téeméer ak lu topp ci cas yu bees Italie am na junni ak ñetti téeméer ak lu topp Royaume-Uni am nañu junni ak lu topp ci ay infection yu bees ca Brésil mbas mi gën di doxi jeego démb am nañ 47 134 cas yu bees démb te 1271 personnes faatu nañu ci bëccëgu démb donc foofee nag xam nañu ni beneen doomu Jair Bolsonaro di président ba testé nañ ko mu am jàngoro ji di coronavirus. buñ ñëwee ci Afrique Afrique du Sud fi la mbas mi gën a lëmbee réew mi am na lu ëpp 613000 cas waaye nag guddi yi ñu ngi testé ab vaccin boo xamante ni ñu ngi kaa développé ci États-Unis te firme bi di biotechnologie Novavax moo ko développé di ko testé ci 2900 volontaires Algérie moom gis nañ ni. mbas mi mi ngi wàññeeku bu baax waaye nag réew ma mu ngi am ay jafe-jafe ci wàllum koom jàpp nañ ni sax dina am ab recession buñ jëlee mi ngi am ay jafe-jafe yu metti jëm ci wàllum koom. Savon Marseille Alfé seen gamme seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li yi ak El Hadj Assane Gueye. màggalug Cheikhul gi yéenekaay bi di laas xëy jàpp ne ku tedd ki ca Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jibal nëpp ndigal lu jëm ci ne màggal gi lépp incha allah dina lalu ci mesure barrières yi maanaam matuwaayu fagaruy kër docteur digle masque ya ak raxasu gi ci la yéenekaay bi ne dinañ ko màggal googee màggal ci les échos porte yoon wi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr di ci indi leeral ci ne mbir mi moom ki ci yore kàddu mujj gi xalifa bu tedd bi la Serigne Mountakha Basiru Mbàkke moom kilifa gi di fàttali kàdduy xalifa bi ci bi mbas mi teewee mu ne ndawal sunu borom la ca bu mission jeexee mu wàññiku moom ku tedd ki sëriñ Basiru moom sëriñ Abdul Xaadir nataalam ñu fekk ko ci Vox Populi mu naan ca màggal gi mooy sunu feet ak indépendance di bis bi ëpp solo ëpp dayoo ci murit màggal gi mooy xew-xew bi gën a ràññeeku ci Afrique xalifa bu tedd bi mu ne mu ngi soññ ñëpp nag di ñaax ñëpp ci colum masque yi la tribune ak yooyee dénkaane xalif général kulu murit ci wàccoog matuwaayu fagaru kër docteur gis ne sëriñ Muntaha Basiru Mbàkke mu ngi ñàkk Touba médecin chef diwaanu Njaareem di ko ca jàppale docteur Mamadou Dieng ci la tribune di ci corona baa ngi fi ba tey ci réew mi di defi loraangeem ak Musibam, ak di law ci Sénégal kon na ci ñëpp jàpp ci wàllu ñaaxe geeg yeete gi ngir moytu gi dinañ nag jëli matuwaay mu ne ci bërëb bi mbooloo yenn yi ci mel ni jumaa jaag la ko wër ci résidence ya kër sëriñ si naka noonu it ci gaaraas yaag marché enquête leneen lu kilifa yi bëgg indi kër docteur ci kanamu ñi test covid 19 dix-neuf matuwaay beneen bu ñu jël mooy tereem njaay ci fépp fu tofoog am mbooloo lu toll nag ci téeméer ak juróom fukki bërëb yi paj ak nemmiku dinañ ko sanc ngir askan wi wàllu politique waxtaan yi ñeel dialogue national bi l'observateur xëye wotey gox-goxaat yi nu dëgmal ak ndëgg sërëx yi ci mën a am su fekkoon ni dañu ko toxal rapport final bu commission bi nag di waxtaanee politique ci dialogue bi yéene kaay bu groupe Futurs Médias njort mu dugalaat géew politique bi ci réeroog wërwërloo ndax bokk na ca poñ yéen a ñu ne audit bi ak xayma anami wote win ci réew mi bi moom la teg ne amul bàyyi ngir mën a bokkati fii ci Sénégal ci yeneen i élection ca ñu ne loole du am lu may dañoo toxal local yi yéene kaay bi njort kon lii lépp xajamal liggéeyub général Niang ak i collaborateur am Les Échos ñëw ci poñ yenu juboo ak yi gindi ko amagul ca yooyee waxtaan politique yéene kaay bi ne bokk na ci lañu ñu maase ànd di léegi lu ñeel marche yi muy dox doxi ñaxtu yi su tere yi am kilifa yi ñetti fan laata ndaje mi lañ ko war a def jibal nañu it ay xalaati digle ci yër yëraat gi war ci article 80 arrêt Ousmane Ngom ak lu ci mel ni yenn kilifa seeni droit politique ak civil fa juboo amagul nag mooy ci anami wutug maire bu faatu ak it ci mbootaay gi war a organiser élection Sénégal yéeni kaay bi ne tey nag li ñuy waxtaane mooy cumul gi maanaam booleeg ndomba bu président ak président parti watay gox-goxaan yooyee le quotidien moom la mu ca njort mooy bi yoon liste yi bari lool ci ñi taxaw sampi di laaj seen gox wàllu parrainage gi nga xamante ni nanu ci dindi ko ci local yi waaye yaanaa maar ci yéene kaay bi ñoom seen gis-gis mooy loi bi ci boppam ñeel parrainage magistrature bu Sénégal ak kerse gi ci jeunes yi naka noonu xuloog rubine ak mbedd ak ñenn ci ñoom le témoin xëy di jàngat li waral cooxe gi yéene kaay bi ne su weesoo ñàkk yamale gi ci wàllu altat gi ca baron yi gën cee profito nguur gi dugal loxoom ci seenub liggéey ak ñenn ci kàngami magistrat yu ko ko nangul moo waral fi puuk jeune magistrat yi forum moom ci coow li ne président de la république ci boppam moo ci war a jëli responsabilité di kàddu yi njiital forum civil Birahim Seck yëkkati ci la tribune juge Dem ba tey la moom la mu mooy réew mi fileeg justice bi moomul ñëpp ñu ngi ci danger wàllu football record xëy nataalu Lionel Messi yéene kaay bi njort ne fu mu gën a jege jamono yi mooy équipe bi di Manchester City Kalidou Koulibaly moom doomu Sénégal bi record ne jàppal nanu ko réservé avion privé ci juróomi fan ci weeru septembre lañu koy xaar ca Manchester City wàllu lamb sunu lamb ñëw ci combat bi di Motlo Ama Baldé ak promoteur ba ko war a tëgg di Luc Nicolaï yéene bi ne weer ginnaaw ak génnam ci kaso bi patt la ca def yooyu ca yàbbiwu ci ci combat boobee Jules sax fu Luc Nicolaï féete waaye Birame Ngingue Yakar, 100 gorom Ligue Nicolas di mbër mi di ci xet bu njëkk bu observateur waxtaan wu yaatu dox ak kay bi ci na muy dundee légui ay projet yu bees sos ne yenn ci supporter nak ñu ngi sakku ci mom fan yi mu ci arène bi savon Marseille Alfé Sengam Opalia seen AAD Abdou Ali Diop Home Choice Sénégal ak Sen Touray raktak bi rey yooyu ñoo doon may li ci ñi koy gërëm bu baax moom xaaja sant li ci yenn kaay mbokk yi foofu la ci xibaar yi ne suñu def parti li ci li ci gënoon fës Nakar ak tiis bi ca aéroport bu Diass bi eh, néewu ko juróomi doomu Sénégal yi fatu ci lakk eh, ca Amérique doon yegg si eh, daañu leen jébal seen borom te ci suba ca sëgg Yoff nguur gi ne ngi bu baax enquête bi yaakaar ci wutug jàmm ca Casamance nguur gi ak kuréel fippu MFDC yi noppi nañu toog ngir waxtaan pour jubon loolu nag ñi ko xam di kuréel gi yëngu ci wàllum jàmm di centre pour le dialogue humanitaire Kaolack ak Ndar di tëmb gannaaw taw yi diggante démb ak askan wa dund jafe-jafe yu ndax mu xibaar suba gi ci rajo Futur Média El Hadj Ndiogou Diène ci micro bi Abdou Thiam ci machine bi euh, ci kanam tuuti ñu defee saa su ne ngeen di àndal ci daan corona Hadj ñu ngi lay di lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay dellu ziar bu baax Hadj Ndiogou ziar ñëpp ñu ànd ak di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp. jërëjëf ci kanam kon euh, daan corona. <laughs> mbir yi de nii mi ngi tëreeg te ticc. ah waaw yan clé nga gis yow. xam nga bu fekkee ni ñun gisaguma clé bi xam naa man moom gisaguma clé bi ah, maa ngi ci tooñ keroog mais yow lan nga gis ah, na waar de pour dëppar ñi waa ji. <laughs> na waar de en tout cas naq <laughs> yombul de yombul moom. yombul gan gan goo xam ne tànk ñibbiwul. Hmm. doo jàmm sa kër ah hmm. doo tëdd nelaw. déedéet loolu rek moo waral gaa yi di ko uppee fu ne. Hmm, fi léegi mu ngi fi moom xaaj.

fii nag le minimum amu fi. Mhm. benn loxo mooy yor benn kër. bu lii dakkul du baax. Mhm. boo koy wax nag ñi nga xam ne xëy na ñoom ñu ngi aju ca kaw. duñ ko gisagum. <laughs> dëgg bu ñu demee ba ñu ci suuf dem aji ña ca kaw parce ndax ñàkk pexe. <laughs> Mhm. <laughs> njóogu ab xiif baaxul. waaw nit boo xiifee ak euh, sonn ah, jaax euh, yaakaar jeex. bul xam lu nit kay def. mun na dem ba am ay ay instinct mala. waaw loolu moo tax ñu ne dafa am loo xam ne ñoo ngi suñu xel. ñu ngeeg sunu solidarité sunuy mën-mën nañ koy boole di kar di gàttandu yenn yi mhm. di anticiper ca bàyyi di topp ci jaan ji dóor ci waxtu yi rek mhm. balaa daray xew nag mhm. lii fi xew yëpp dañ naan gisoon nañu ko ba ñu demee ca premier cas lañ ko doon wax ñu ngi ci deux cent soixante et quelques morts ba mu dalee ci Chine Chine xam nga fa mu ne ñu toog di wax rek ba tey et cetera loolu nag ba kañ ba kañ il faut ñu anticiper waaw ah, nit ñi tamit jéem ñaxaat leen encore rek ñuy topp euh, digle yi digle yi yomb nag ay masque del raxasu ca loolu boo ko defee nga continuer sa activité loolu koy yomb na yàlla ku ko bañ nag loolu beneen affaire doo comprendre mais wax dëgg yàlla yomb na xaaj njugu yomb na bu amul nag kenn du am jàmm parce que yow mi ca ne sax di moytu dañ lay fekk si Sénégal nuy dundee kenn mun a daw sa morom événement yi ñuy wax yëpp dañuy ñëw xuwante ji bu la ci kenn nax <laughs> kon kay nañu masque wu nañu raxasu sauf que nit ñi sénégalais moo naqaree waxal da ngay wax a wax ba sonn waaye daal. Hmm. day mel day dugg si biir nopp génn ci beneen nopp. de duñ te yem kay bu doon sax day dugg seen nopp génn dañ lay saaga kay. ak <laughs> di dëkkal foo dëkkul. Hmm. ak di la jiiñ. <laughs> c'est-à-dire <laughs> ya, da ngay indi benn sujet ñu distraire la. yow euh, yow bien sûr boo waaw boo ko nangoo <laughs> yow waxal la ngay wax rek c'est-à-dire ñoom da ngay indi dara ñu distraire la. Mm-hmm. wala nga nga indi dara. Mm-hmm. kenn ci li di wax génn troisième. waaw nga jékki-jékki rek ubbi internet gi liir loo xam ne nga ne ki mer la bu mu dencoon premier janvier. <laughs> dóor la ko donc dañ lay distraire mais en tout cas li wax rek nañ xàmmee farata ak sunna waaw àddina da ngay farata ak sunna mm-hmm. parce que lu ko mooy boo nekkee ci sunna ba farata teew nag <laughs> donc ko mën a ci mm, mm, mm, farata c'est la fondation de toute chose a mm-hmm. waaw loo ci mënti dégg nag mm-hmm. lii lépp li ko jiitu xaaj euh, fondation mm-hmm. leneen lu tegu ci kaw château de cartes lay doon rek bu amul dëgër laay rek bis day nërmeelu dégg la mar de incha ci yàlla amin amin ah yàlla nañu yàlla suturaal yàlla jël fi jàngoro ji Mm, ñaan baax na yomb na ko yàlla nañ ko yàlla yëkkati jële ko fi kon. waaw ah, léegi ñaan baax na mais euh, ndimbal da cee fekk loxo borom yàlla yàlla ba muy defar nit. du am jot taxuloon mu koy defar. te gis nga ni mu ko defaree de façon scientifique. xaaj nga xool rek nekk lu sa biir ndey. Ah, yow nam lay nam lay placé ca biir ba nga xamante ni muy sa ndey la muy lekk yeneen dara du la ca gêné yow da muy wëlbatee doom ji ci biir mhm. et cetera et jox la dégg jox lay gët ngay xool mhm. waaw loolu nag yow nga bëgg na rek yow am xar ngay doon rek yow yow da ngay ne ci àddina xar mu solo daal xar mu solo tëli rek mhm. mën nga di rek ngay toog di gëstu la meilleure des richesses bu ñu suñu borom jox c'est l'intelligence c'est pas ay étage du 4 x ñaata 4 x nga gis ci yoonu tali bi ñu ma moo ko ñëw mais xel moom fi léegi yaa ngi koy jëfandikoo xaaj dara dara du la jomb. Mhm. xel ak sago. Mhm. Mhm. jërëjëf xaaj kon ci kanam tuuti euh, ma bàyyi la ak yi ci daan corona kon. <laughs> maa ngi ziar Zapata <laughs> Zapata kenn la ci menuisier kër gi. ma <laughs> Futurs Médias daa bari atelier. ñi ay électricien ñi ay menuisier. waaw am na ci menuisier bo xam bu jaaré sa kër mom ni ngui koy xamé moy vachette yedul nduro denk yi tam day dab daaxee finalement do xam ki fan la jangé dal ba menuisier la ci kan kan la ci. zap la.